Euh, lii dafa nekk dossier boo xam ne ne nañ dossier en justice la gis nañ ne ce dossier dossier euh, Sonko Adji Sarr a fait déjà 17 morts depuis l'éclatement de l'affaire est-ce à dire que dañu war a toog fii di compter suñuy morts je crois que euh, à mon avis il doit pas de l'impunité au Sénégal hmm. c'est l'imputabilité hmm. amee ay bakkan di ci rot ki doon diriger opération sur le terrain kenn du ko inquiété chef euh, de la police ou de la gendarmerie kenn du ko leen inquiété ministre de l'intérieur ministre de la justice du ñu inquiété wu sénégalais war a toog fii di compter les morts yaakaar ne loolu lu jaaduwul la euh, léegi nag euh, pour porter l'estocade on a vu un communiqué du ministre de l'intérieur buy ñaan waajur yi nañ téye seen doom yi je pense que quand même c'est le summum de l'irresponsabilité jóg ñun ñëpp on a fait des manifestations. mais doo mës a jóg di dem manifestation di tàggu sa baay wala di tàggu sa yaay ne ko may dem manifestation. sa engagement moo lay yóbbu. donc euh, bu nit ki demee foofu la responsabilité état moo ci nekk bu amee ko ci ñàkk bakkanam dañu war a situer responsabilité bu amee daan yoo xam ne dafa war a tegu ci boppam ñu teg ko daan yooyu c'est ça en réalité. Mm-hmm. aller à une manifestation. équivaloir à une suicide ou à des on nekk quand même dans un état de droit. Je crois que sur ce plan-là, il faut que les gens soient dessus. Il faut qu'il y ait qu'on situe les responsabilités. koo xam ne manifestant nga da nga dem manifestation loxo neen bal fekk la fa jël sa nga perdre sa bakkan il faut rek ñu situer responsabilité ñun daal loolu mooy suñu gis-gis loolu mooy suñu taxawaay les manifestants dans un état du droit c'est consacré par la constitution boo amee lu la naqari dara jóg nga ñaxtu ko loolu warul méngoo ak nga ñàkk sa bakkan donc loolu c'est pas normal et il va falloir que à la raison et qu'on situe les responsabilités ñoom bu ñu leen bu ñu euh, jëlu seen responsabilité ñu démissionner dañ leen war a démettre